Makan Mbeng jiite li nga xam ne moo di Gaston Production kàddu yi rafet na am na solo niñ ko waxee rek lamb facteur de développement la ñëpp ngi ci yëg seen bopp ba ci jaay ndox mi ngi ci yëg boppam kiy jaay billet jënd jaayit mi ngi ci yëg boppam kon nañ ko gën a dooleel gën ko suqali waaye affiche bi El Hadj dama lay bàyyi yow ak El lamin sàmba ak Modou ngeen dugg ci affiche bi ndax affiche la boo xam ni képp ku ci feeñ dootoo nëbb ba mukk Alaaji Malick Thiandoum bismillah jërëjëf Cheikh xanaa makan daa sawar rek di woo ay sponsor waaye defe naa ne làmb ji làmbi njëkkante la un combat royal diggante Modou ak booy Niang numéro 2 wax dëgg yàlla ku bëgg visibilité bëgg lu siiw bu yeboo nga teel a ñëw parce que ragal naa ne bu ñu demee ba ca kanam dina xat lool pour ngeen dugg dina jafe parce que combat bi moom moo déjà jaay boppam ba pare donc li ci des nag Cheikh mooy rek suñu ñaari gaay yi yëkkati ay kàddu wax ak askan bi ki ciy njëkk nag mooy Modou ndax quatre ans ngi nii kenn déggul mu wax gaay yi namoon nañ ko lool ñenn ñi sax nee nañu léegi sëriñub tariyaax la ñii ni Ibadu Rahman la ñii ni day siyaam moom daal lu ne wax nañ ko ko léegi nag Modou ma naar naar yaa ngi ku jël avance xam naa ni bëree nga nar def donc te bëre mooy sa métier man bu ma déggee nit ñi naan Modou dafa bàyyi bëre dafay xëcc kurus ak yu ma xamul man daf may jaaxal. parce que fan nga mës a déggee fawum xaalis. fawum xaalis dégg nga dégg léegi promoteur bi li mu wax. nee na c'est un combat qui très cher. mu ni combat bi dafa cher. da ngaa mës a dégg fenn pawum xaalis. Malick ku la ameeloon cent mille léegi nga fanaani buntu këram. maa la wax loolu est-ce que Modou dina jël avance su jàmbur ba pare naan ibaadu laa ak damay lii. nañ nañ bàyyi suñu possibilité kon nañ bàyyi suñu xel yi ñuy foye donc Modou ñu bàyyi la rek nga waxtaan ak àdduna waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom ñooy say fans waxtaan ak say mbokk ak say am di jàmm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 yàlla may leen gudd fan ak wér ba yéene yi njaboot yi am ci ñoom yàlla dimbali njaboot ñu mën koo yeggali waaye di nuyu assistance bi bu baax a baax d' abord dañuy euh, jaale promoteur bu mag bu fi jógee muy sëñ Modou parce que lamb moo ñàkk Sénégal moo ñàkk parce que ku ne xamoon na li muy def ci lamb di ko jaale axlu lamb di ko jaale njabootam yëpp di ko ñaanal moom it yàlla yërëm ko xare ko àjjana ak li xew fële du Turquie ak Syrie muy euh, kii fa am daal waaye Syrie ak Turquie di ñaanal ñi fa génn àdduna jullit yëpp yàlla yëral leen xale na àjjana ñu ci am ay gaañu gaañu yàlla wéral leen di ñaan Sénégal yàlla def fi jàmm di nuyu kër kilifa diine yëpp di nuyu nag assistance bi ma fekk fii waaye di ci jiital journaliste yi di teg ci nuyoo yi euh, Malick Thiandoum di ko teg nuyoo bi seen loxo di nuyu ménagères yi ma fekk muy sama ménagère di ménagère u Boy Niang président Rock Énergie Xaadim mu ngi fi staff àndal mooy Rock Énergie ak bépp écrit bu nekk parcelle di nuyu Sénégal yëpp di nuyu parcelle 1 ba 26 bi ma jugee rawatina unité 10 bi ma dëkk di nuyu waa Lagrose ñàgg pël ñàgg olof ah déeni biram daw déeni sud ak euh, Kër Mayram Mbeng ak euh, bënn ba di nuyu waa Yoof Cambérène Ngor wakaam Yoff ñëpp maa ngi leen nuyu di nuyu ñuy seetaan partout dans le monde waa États-Unis France Italie Espagne part dans le monde daal ku nuyu dangay ngay juum di nuyu sama fans club yi nag muy xarañ family ah xarañ sans frontière di nuyu ñëpp di nuyu suma adversaire muy Boy ñaa di ko ñaanal jàmm di ñaanal ko sa bopp di ñaan yàlla nañ yàlla may tal ak fekke ba bis ba yéene yi ñu ci am yàlla mottali ko incha allah di nuyu encore Makan Mbeng di ñaanal suñu papa Gaston yàlla defal ko taw feex ba mu siwaat ci njaboot yi bu baax waaye di ñaanal makan lii bu sumb yàlla na ko dugg ci alhamdulilah génn dugg ci bi bisimilah génn ci alhamdulilahi rabbil alamin ba yéen a yum ci am yëpp yàlla def ko di nuyu di gërëm suñu di féliciter suñu lion yi mooy champs yi ku bii ñu jël keroog di leen féliciter yàlla na yeneen ndam topp ci di nuyu Sénégal yëpp jërëjëf Modou yi dañu waxoon ni da bàyyi bëreek da ngaa nar a yor kurus ak sijaada waxal ak Sénégal waaw xaw nga sénégalais moom kumpa da koy xaw a da koy xaw a rey tuuti parce que li fi jaar bari na tey corona jaar na fi def defe naa ñaari at da yënguwul yàlla dogaloon ñuy pré combat ba ci biir am ndog-ndog bu am du woon suñu coobare lu yàlla dogal la moom mooy soog a dal ci làmb ba tax nag comme nekkuñ ci ñoo ngi woon suñu bopp ñu xaw a retiré wu tuuti nekk suñu bopp nag nekk ci bopp nag day nekk kumpa ci nit ñi ba tax na lu nekk dañ koy wax mais daal ñun ñoo ci lu war a nekk daal. mais mais man ci la nga nekkoon. man dama benn mooy ban. parce que yaa wax léegi ne quatre ans bëriwul. Mm-hmm. couronne bi mi ngi ko jëlee waat mi ngi ko jëlee woon Pikine kon nag Pikine moo koy bëriwaat yaa ngi ko jëlee woon ci Eumeu Sène door ko mu daanu mais xale màgg na ñëwaat na. mu mel ni Pikine la woon Pikine la bala ngeen dugg ci laaj du ngeen bàyyi. bala ngeen dugg ci laaj du ngeen bàyyi Boy Niang mu nuyoo ba pare ak ah, ci bisimilah. waaw loolu moom bu tontu woon fii dana neex de. non xam nga intro la. donc moom nuyoo léegi ñu bàyyi euh, Boy Niang également mu nuyoo parce que aussi am lu bëri lu mu éclaircir ndax comme je l'ai dit tantôt euh, combat bi amoon na tuuti coow nit ñi di wax war na ko jël waru ko jël euh, mooy li ma waxoon rek ma waxtaan ak père de Gaulle mu ni ma damay waxtaan ak les sages de Pikine parce que Pikine warul am réeroo cent pour cent bi ñuy wax wala deux cent pour cent bi ñuy wax i également dafa war a nekk lu dëggu dafa war a nekk lu sincère te loolu je pense que am na ñu bëri ñu ko incarné ku ci mel ni Pape ah nga xam ni Pape Sarr xam ne lépp luy ràbbale Pikine def ci nekk subaak ngoon guddeeg bëccëg kon tey Boy Niang bu jëlee combat bi c'est parce que c'est dicté par la marche de la l'arène voulu par les promoteurs voulu également par les amateurs mais béni par Pikine looloo tax mu jël ko Boy Niang ñu bàyyi la nga nuyoo ak askan bi nuyoo ak àdduna alo alo allo. asalaamaaleykum. maa ngi sant yàlla bu baax julli si yonent bi sant sumay ñaari waajur. di nuyu waa kër Cheikh na Cheikh Sadou Abi di nuyu waa kër Cheikh na Wuldu Maamin bu baax a baax a baax di leen jox seen cër ak seen wàccuwaay. di nuy waa kër Maam Borom Touba di leen bu baax a baax. di nuyu waa kër Maam Alaaji Maalik di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay. waa kër Cheikh Abdou Khadir Jilaani maa ngi leen nuyu waa Ndiassane maa ngi leen nuyu waa Laayeen kilifa diine kilifa aada yëpp ci dëkk bi maa ngi leen nuyu bu baax di leen jox seen wàccuwaay di nuyu ñi nga xam ne ñoo nekk ci plateau fi ñu toog nii ci plateau bi assistance yëpp maa ngi leen nuyu di njëkkee ci nuyu bi suma papa Bourkhane Wade defe naa ni mooy kilifa gi moo fi mag loolu laa foog maa ngi lay nuyu bu baax jox sa wàccuwaay di nuyu journaliste yi presse bi maa ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu suma adversaire Modou di ko jox wàccuwaayam di nuyu Makan le promoteur di la wax mention spéciale gis nañ taxawaay bi yow ak Abdoulaye Ndiaye ñu ngi leen nuyu bu baax di nuyu journaliste yi ko ci mel ni Lamine sàmba Cheikh Sarr ñu ngi nuyu bu baax sama père Malick Thiandoum Modou maa ngi leen nuyu bu baax di nuyu ñu ànd ak Modou yëpp di leen jox seen wàccuwaay di leen nuyu bu baax a baax di nuyu ñu ma àndal muy sama école de lutte boo ñaa maa ngi leen nuyu bu baax mbër yi staff bi sama papa neew fi maa ngi koy jox cëram ak wàccuwaayam ak suma yaay ñoom père xës père lin ak ñëpp rek suma ma limee damay juum su ma père Mansour Diop maa ngi koy nuyu foofu mu nekk père Paala Diop Papa Diallo Pikine ñëpp addu baaxum bàyyiwuma kenn comme ni ñu koy waxee rek ñoom laa àndal moom mu metti ñu ñafe ko ba yegg si fi ñu yegg si donc ñu ngi sant yàlla bu baax a baax kontaan nañ bu baax ci plateau bi di wax ni xam nga ñu ngi ñaan suñu boom defal ñu jàmm rek ñu yeggale lépp ak suñu sago dafa am koo xam ne nag dafa génn àdduna muy suma lépp muy chef jour na ay dara maa ngi koy njabootam ñëpp di ko jaale ñëpp waaw di rebondir tamit ci Modou wax dafa am solo muy seen Modou ñaa ñu ngi koy jaal ay monde làmb bi yëpp waaw ku def ci làmb la dafa yokk waaye wàññiwul maa ngi koy jaal waa Pikine di ko daal doom njaga ñaa di jaal ñëpp di ñaar suñ borom xale ko àjjana ñu ngi bokk ak ñoom tiis bi ak naqar bi ñu ngi koy bokk ak ñoom bu baax a baax a baax jërëjëf merci beaucoup. li ma doon wax léegi rek nga accepté jël euh, Modou alors que mu amoon na contrat bu doxoon digganteem ak Ama loolu aussi jar na leeral que arrondir ngeen angle yi waxtaan balaa ngay jël avance bu mel nii mu leer ci boppu ñëpp. waaw loolu la yàlla def ci loolu rek damay nuyu suma frère Ama Baldé di ko di ko ñaanal jàmm bu baax mu tane ak jàmm ba continuer activité am di nuyu mbëru Pikine yëpp comme ni ñu koy waxee yaa wax léegi yaa leelal lépp da nga ne ba mu bëree ba pare da nga approché son papa wax ko ci combat bi mu wax la ñun duñu jël combat bi parce que Modou mi ngi ci contrat ak mu wax la aussi ñun li ñuy dugg balaa ñuy dugg dara dañuy waxtaan ak magu Pikine yëpp parce que Pikine ñun ñëpp ñu ko bokk kenn moomu ko dañ ko partagé te bu ñu dañuy génn kenn génnewul ak sa drapeau ku ciy génn drapeau Pikine ngay génne donc nag du ñu nangu mu ko drapeau Pikine mu suux wala mu arrière wala mu dellu ginnaaw dañ ciy jaayante ba fu mu yem neex ni nga ko waxee rek yàlla dogal na moo ko ama ñoo waroon bëre combat bi lu ju bëri laxu yàlla def sottiwul waaye ñun balaa ñu ci avancé dañ ciy waxtaan ak ci war a waxtaanal ñu nekk suñu ruko waxuñu ci communiqué wuñ ci pa boo gisee rek ñi nga xamante ni làmb mu affaire de gentleman la te waa kër Ama ba dañoo wane nañ lool bu baax a baax parce que Ama maa moom toll nañ ci làmb foo xamante ne ñoo bokk ay adversaire damay bëre jox mu bëre wala mu jox mu bëre loolu rek moo fi nekk donc affaire yi man dama bëggoon sax mu nekk loo xamante ni à partir bu ñu ci waxee tey rek ñu close loolu daal parce que am loo xam ne jaruñu ci communiquer chaque jour parce que parce que ñu yëpp ay frère lañu waaw man ak nekk ay mbër yoo xam ne dañoo ñëw fekk gi dara new fa ñu jaayante ba yegg si fii waaye ñu góorgóorlu suñu papa yi sonn ci làmb ñu damm seen bëñ ci làmb ñu doolee ñu teppeeku ci làmb ñu daj lu ne ci làmb donc lu ñu am rek dañ koy yóbbu suñu waajur ak gars yi ànd ak ñun donc li ma amee yéene pour am lu bari ci làmb noonu laa ko amee yéene mu am ko yàlla xam na ko donc di ko ñaanal mu wér ak jàmm rek làmb nag dafa nekk ba mu paree ci Balla musuma taxaw na ne ma jox Modou ma bëri ak moom waaye yàlla rek moo ma ko indil ma war a bëri ak moom boo bëree Balla tamit amul kenn ku nekk ci làmb bu xalaat ni maa ngi Modou dañuy bëri donc laa yàlla nag bu tegee dara dañ xam ne loolu la teg daal waa suñu borom nag maa ngi ñaan moom mu ma indil lii moo xam ne li mu ci namm daal mu yeggali ko daal maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp jërëjëf. bien dit. ayca euh, El Hadj Lamine Samba dafa am question bu mu laajoon sànq. grand nga ni. non moom Modou dégg na ko sax parce que déjà quatre ans bëriwul. mu ngi toog quatre ans bëriwul couronne bi bi ñu ko jëlee woon Pikine euh, suwaat nañu mu war a nekkaat biir Pikine nga jëlee ko Pikine war ko tegaat biir Pikine loolu lan lay def ci yow. waaw loolu du problème comme li ma wax sànq rek euh, quatre ans ma absenté ko du suma rek xam nga tey yàlla dafa defoon toog dem nañ faju ba wér alhamdulilah reprendre nañ suñu entrement bu yàgg puisque suñuy dëkkandoo ñu am combat ñoo ngi dem di ci jàpp comme d'habitude ba dax na Pikine laa ko jëlee di dugaat Pikine loolu du du problème lamb moom comme lu boy ñaaw rek temps di nga am ki nga xam ni sa adversaire fu muy fu muy gën a baree te man sama souhait loolu la woon wax naa ko maintes fois du benn du ñaar tey ay Ama Baldé ay Boy Niang ñeneen ay benn génération lañ su ma leen njëkkee dugg ci làmb benn at la wala ñaar at ay génération lañ xëy na maa leen njëkk bëre moo tax xam nga mais magante dara xam nga ba tax na làmb ji du Modou Lo ay Modou Lo Eumeu Sène Modou Lo Lac de Guiers non làmb ji dafa war a ubbeeku te sama bëgg-bëgg loolu la woon dama doon ñaan su ma yàlla mayee couronne bi ma gën ubbi làmb ji waaw ñu ñuy wax suñuy morom lañ ñu ñuy wax suñu rakk rek ñu bëri ñoom làmb ji gën a ubbeeku loolu moo doon sama bëgg-bëgg loolu jërëjëf maa ngi leen di jaajëfal bu baax di nuyu monsieur le maire di nuyu oustaz di ko wax oustaz monsieur le maire Boy Niang waaw <laughs> ah yaa ko wax de ah, di di nuyu oustaz di ko wax kayfa xaaluka taalama rayutuka walakin taalama samituka tafadal min riyaadiya yaa seydi waaw euh, en tout cas <laughs> Modou Lo Euh, tey nga jël ki nga xamante ni mooy Boy Niang numéro de mën nañu ne dippi nga euh, feeñaat Boy ñaa daan Balla gay sa staff wala boog leen ci sa staff ñoo jëkk a génn laaj ki nga xamante mooy Boy Niang déclaré pour bëgg a bëre ak moom te dañuy gis ne toujours fu Balla gay échec rek Modou Lo day ñëw bëgg fa réussir comprendre nga bu baax a baax Boy Niang Euh, ñu gis ne combat bi euh, fi mu yàggee daal ci ci ci yow la daal lan moo waral loolu bien vrai que ne a ngi doon da ngeen di waxtaan ci seen biir euh, ak nu mu demee noonu lu tax boo toujours Modou day sawar ci koo xamante ni dafa daan Balla gay ndax yaa ngi siy bàyyi xel. Modou Lo. Modou ah ci oustaz bi parce ku nekk moom bëgg nga am xam-xam bay bay jàngale. xayra ku man taxalamal Quran waxal boobu. ñi gënal yàlla mooy ñi jàng ba pare di jàngale yàlla na ma yàlla may xam-xam bu ma jàngalee loolu sant yàlla la quoi sukuraan lakk alhamdulilah ak lu ci togg woon sax waaw dañu gis ne euh, bi Boy Niang génnee ci Balla Gaye numéro 2 daan ko len ci sa staff wala ñu la jege dañu gis ne euh, gis na nu ñu gën ne bu bu ñu leen joxee Boy Niang ñu jël ko parce que man tollu ma ci làmb fu may toppee benn mbër wala discipliné benn mbër defe naa ba tax na tey dafa bëre def exploit sam la nit ñi xam ni lamb bu jaadu la rek mais pas may taxaw di laaj ba ñaaw wala su may saaf non dañ leen ci laaj xam nga buñ ci tombee d'accord mooy loolu. Mm. te combat la sax quoi moo tax dafa def ay preuve am mm. ñun tamit ñu bëri ba am fu ñu yegg lamb boole ñu ñu war a bëree. lu tax ngay sawar ci fu Balla Gaye échec. non loolu yaa yaa ci bàyyi xel man bàyyiwuma ci sax xel wax dëgg yàlla waaye amul lu ñu naan tombé waral ay gaaf <laughs> bàyyiwuma ci xel vraiment. Boy Niang waxaale bi yàggoon na torop mën nañu ne ci yow la gën a yàggee est-ce que xam nga ne Modou dafa sawar ci koo xamante ni euh, dafa daan la yaa ngi ciy bàyyi xel. waaw maa ngi ciy bàyyi xel mais dama gis benn affaire boo xam ne yéen a koy wax il faut que ma wax ci. le fait que ngeen woowee Modou oustaz xam nga ku nekk moom am nga droit wooye nii du ko neex waaye àddina ñu ñëpp ay jullit lañ te ñun ñëpp dañ bu ñu sañoon dañuy wooye oustaz. parce que ñun dañoo fonk diine man man mi ngay man mi ngay gis nii boo ñaa man nitu daara daa man su may ay maam su ma ay nijaay yëpp ay xaafis alxuraan lañ waaw donc nag man nitu daara donc diine dafa am solo diine avant sport sport bi après la war a ñëw donc lool moom pour gars yi dama bëgg dama bëgg bàyyi xel loolu rek parce que bu ñuy muur Modou Oustaz wala ñu bu rek koo féete rek diine bi dafa mel na ñun bokkuñu ci ñu ñëw ko bëgg gën a bëgg diine bi fuufu ñun dañuy waaw ñun dañuy dañuy dañuy jaamu yàlla teg ko ci yoon xam ne lépp bu jeexee suñu borom moo fi nekk donc dama bëgg ñu bàyyi xel bu baax a baax ñoo war dàq julli fuuf <laughs> wóor na yàlla <laughs> noonu la demee beneen bi mooy comme li nga wax rek yàlla dafa dogal ma jóge ci Balla mag Modou làmb moo ñu boole rek làmb moo ñu boole ñu war a bëre boo xoolee rek ba ma bëree pare rek dafa fekk sénégalais yëpp ak amaatul làmb yëpp dañ bëgg suñu combat parce que combat bu neex la man ak moom yëpp ay bërekat lañ waaw moom moo ñu tàkk bëre sax mais ñun ay xale lañ ñu ngi jàng bëre waaw waaw te yàgg nañ ko gis muy bëre te xam nañ bu ñu ñu wuree na neex trop te xam nañu combat bi nañ xeex kontaan parce que loolu lañuy xaar si ñun man xam naa ko bu baax li amateur yi xaar xaw ma nag mbër ba xam na ko bu baax waaw gars yi dañuy wax ni combat bi du combat de négociation de dañuy bëre dañuy xeex incha allah moom lañ ñëpp di xaar si ñun ci kàttanu yàlla incha allah ah. euh, comme noonu la rek xam nga boo ñaa moom am staff am ay kilifa am ñu nekk suma ginnaaw boo xam ne Makone mi ngi na wax nii sax moo Alaat Ndiaye négociation bi dem na ba avancé bañ finalisé te man sax waxuma ci dugaluma ci suma kàddu parce que nit moom doo joxe bopp di rocc làmmiñ daal maa ngi nuyu ñoom Abdou Kañ bu baax famille Kañ di nuyu Kebe mi toog di nuyu Tafa Kañ di nuyu kilifa yi nga xam ne ñoom bëgguma ñu tudd seen tur te ñu nekk rek di jàpp di bu baax a baax nekkal boo ñaa maa ngi leen nuyu bu baax gis naa taxawaay bi yàlla moo def loolu rek négociation bi sottul woon ñu suñu papa Alaaji Mansour Mbaye mu dox ci médiation xam nga makan moom it dafa commencé bëgg lu yomb yow bu ñu kiiwee rek nga dem ci Mansour Mbaye waaye moom bu ëllëgee da nga koy teg noonu la ñu ngi koy nuyu moom it a baax di nuyu suñu papa Mansour Mbaye ak suma mbokk géwël yëpp di jox seen cër ak seen wàccuwaay mais loolu rek moo taxoon mu yàgg mais amul benn problème ñu day xale lañu bëree rek mooy suñu métier incha allah alors Modou dégg nga ah moom déjà lancé na hostilité yi nee na combat bi ndax xam nga li amateurs yi xaar ci yéen parce que maa ngi wax léegi qualité ñaari mbër yi moo dem ba Euh, combat bi ñëpp yaakaar ni ça va être l'un des plus beaux combats de l'arène parce que bu dee technique am nañ ko macha allah wax naa ko léegi bu dee xeex mën nañ ko Modou wax naa leen buy dugg day xeex buy génn day xeex bu jàppee day xeex bu koree day xeex wax naa leen ni booy Niang avant de devenir lutteur au plus bas la commencé jàng xeex boxeur la njëkk a jàng kon bu ñu xeexee mu neex bu ñu bëree mu neex bu ñu damyee mu neex donc combat boobu moom lay wax mu ne ndax xam nga li ci amateur yëpp di xaar. waaw mais xam nga xam di wax dañuy wax tay taylu la. parce que kenn jëlu fi avance pour lu nooy wala ay négociation non affaire yu moom saa yi ah, ah allah waaye euh. lu yomb sax dafa baaxul yëfu góor la waaye du yomb waaw maa dama ciy profité parce que da ci dugub bi dafa am lu ma fàtte woon su ma benn fans bu génn àdduna tey buñ ma wax fi ma toog fii nii muy Mariam Diallo ndeysaan yaayam dafa génnoon àdduna même pas 21 jours moom mu tegu ci tey su ma daan bëre chaque fois day jógee Mauritanie ñëw ñu wax ma sànq dafa génn àdduna di ko jaale ay mbokkam di ko jaale waa Mauritanie yëpp di ñaan yàlla yërëm ko xare ko aljana moo waajuram yëpp waaye di ci profité nuyu waa Gambie tamit génération xarañ ci nuyu Pape Diouf président di nuyu waa Mauritanie tamit aasi fans club bi da ko ci jiital combat bu war a neex la qualité yi nga am ak qualité yi booy Niang am moo tax nit ñi am espoir que combat bi moo nar a dàq ci combat yi narul am déception. waaw man dama sawar ci bëreeg bëreekat. parce que ñaari bëreekat ñu daje. làmb day am day neex. ñaari xeexkat tamit. moo tax kenn xalaatul mu yomb non mais nañ ci yàlla may ndam rek ñun incha allah waaw. mais Malick. xam nga combat bi dafa jaay boppam wax boppam. présentation la te dañu nekk aussi ak suñu ay nawle suba mu nekk jour ouvrable tout à fait léegi li ñu li ñu bëgg a def mooy kenn ku ci nekk am na ñi ngay woo booy ñaa am na ñu muy woo bi première présentation bi la mais yeneen ak yeneen ak yeneen mi ngi ñëw te bu ñu nee drapeau président Macky Sall du yomb nekk na événement boo xam ne événement bu rëy la booy ñaa ak Modou no non bul son dinañu xeex dinañu bëri c'est clair parce que Modou Lo mës ta yàq lamb bu dee bu dee ci làmb dañuy wax Modou Lo musta am carton jaune ci làmb Boy Niang dañ ko tuddee l'ambassadeur de la non violence kon mun naa wax ni keroog moom ba muy bëre ak Balla Gaye même marche yi marche yi nit ñi di jaar dañ fa topp sàkkatuma laa nag muy bëre ñaari mbëru réew réew nag bu ñu dajee bëre ba naaw Boy Niang am nga combat mais le Modou Lo aussi xam ni am na combat ça c'est clair kon ñu bàyyi leen rek xam naa ni Cheikh ñoom ñu euh, euh, def le mot de la fin mais aussi comme ay leader lañu li nga doon wax sànq def leen concerner ñoom ñaar parce que tey tolluwaayu réew mi ah kenn ku nekk war nga mun a àddu woote jàmm ci réewum Sénégal ndax bu ñu dee organiser làmb sax jàmm moom moo fi am moo tax ñuy organiser làmb ñoom ay porteurs de voix lañu ay leaders d'opinion lañu war nañu mën réew mi ak tolluwaay beeg. xët-xët jeeg xëccoo beeg tension bi fi am kenn ku ci nekk def appel ci ñu dal ci réew mi jàmm am ci réew mi bu la nit ñi déggalee loolu yaakaar naa ni moo arrangé ñëpp kenn ku ci nekk war nga lancer message ci loolu balaa ngay woote ci làmb ji parce que am na yeneen daje yi ñu war a def comme je l'ai dit au départ lii du face to face bu nga xam ne dañuy taxaw naan maa lay def nii dinaa la dóor dinaa la duma eggaguñu foofu tegante dënd eggaguñu foofu ci présentation rek lañ toll. waaw comme li nga wax El Hadj parce que bu ñu dëkkee réew ñun ñëpp nekk fi suñu lépp nekk fi suñuy waajur rek suñuy njaboot lépp nekk fi day jar bu amee lu ñuy wax lu yoot ku ci nekk boo mënee artu nga artu ko parce que tey ku waxul ëllëg lu am yow da ngay am toor parce que tey am na ñoo xam ne yàlla lu mu ndaw ndaw may leen kàddu ñu bu ñu waxee sax bu dee fukki personne dinañ leen dinañ leen déglu di wax rek comme lu ñu waxoon réew mi Sénégal le pays de la teranga lañ wax dëggu jàmm am na yoo xam ne wax dëgg yàlla mosuñu ko fi gis mosu fi am te ñaanu yàlla mu am fi comme li nga wax tey bu jàmm am woon du ñu toog fii di signature jàmm ci la lépp xaj te ay du yem ci boppu borom lu ñuy wax la wattaqu fitnatan laa tusiibanna llazina zalamu minkum xaasatan ay du yem ci boppu boroom tey bu ñu taalee ay ñoom ñi ko taal sax mën nañ ci bëgg a génn duñ ci génn ñu ci seen yoon nekkul it ñoom mën a leen laal te boobaa arrangé wul kenn di wax muy politiciens yi nekk ci dëkk bi moomuñu réew mi dañuy dem bàyyi ko fi ku fiy toogaat du éternel nguur yàlla rek moo dul jeex nguur yëpp dafay jeex ñu fi nekk ak ñi nar a ñëw yëpp lépp nañ ko def ci jàmm ci fair play yàlla moom mooy joxe nguur nguur yàlla moo koy joxe mais ànd ak dal. am ak dal parce que ci la lépp xaj ci la lépp xaj di ñaan daal Sénégal yàlla def fi jàmm di nuyu suma waa village yi samay waajur jóge muy waa Fandène ak waa ba Ndiaye di nuyu encore waa Parcelles di nuyu monsieur le ministre Amadou Ba di suñu ministre premier ministre nekk fi pour Sénégal yëpp di ñaan liggéeyam yàlla na ko yen bi ko président yen yàlla na woyof toll nit doo ko xeebal bésam doo ko xoobal sëriñam donc nekkul parce que dañu dem parce que faraluñ kee wala non non parce que dañu dem parce que kooku suñu nit la am na fu mu taxaw ak ñun beneen côté bi tamit bu demee noonu dañuy dem beneen beneen côté tamit noonu na ko Sénégalais yi xamee noonu fu ñu dem rek parce dañu am koo koo xamante ni moo ko organisé a moo nekk fondateur bi moo nekk suñu nit rek sekk ñun teraanga mu ñu woowee rek ñu dem déplacé wu bëggal Sénégalais yi ñëwaat suñu ruq rek noonu la noonu ko bëggoon changer lancer pour message bi dégg naa ci affaire yu bari pour gars yi xam bu baax buñ ma gisee fenn rek dafa am te lu ma am rek man maa ko ñafat sama bopp comprendre nga waaw noonu la demee di ñaan dëkk bi suñu moom def ci jàmm bu baax a baax a baax di nuyu ñëpp ñu may jàppale nag di nuyu waa Thiès waa Tivaouane waa Sambé waa Niodior waa Diofior waa Koudia Diène batu ma leen bu baax waa kër Cheikh na César Abi maa leen gën a jox seen wàccuwaay bu baax a baax a baax waa kër Cheikh na Wuldu Maamin di wax ni combat bi taxaw na ñu ñaanal bu baax suñu boom defal ñu ndam bu baax suma waa kër maam Cheikh Rim Duman maa ngi leen nuyu bu baax a baax waa kër maam Cheikh Rim Duman maa leen nuyu bu a baax a baax xalifa bi Cheikh Baye Cheikh Seck duñ ko fàtte bu baax a baax ak njaboot gi yëpp maa leen nuyu di nuyu sama papa Malick jóob président MEDES sama papa bu baax maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax di sama papa Abdoulaye Timbo daf may jàppale maa ngi koy nuyu bu baax Isaaxa Diop duma ko fàtte bu baax Seydina Ndom Ba maa ngi koy nuyu bu baax a baax baax gis naa taxawaay bi ak jàppale bi maa ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay bu baax sama papa Sira Dia du ma ko fàtte maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu waa Casamance waa Badiar yi maa ngi nuyu boo gisee dama xawoon sonn sama fans club bu nekk foofu ñoo am programme ma demoon fa loolu moo tax sax ma xaw a tardé maa ngi leen nuyu bu baax a baax a baax wax gis naa seen taxawaay bu combat mais dañuy def bu dëggal ñëw jàppale ma moo tax xeebul ma ne seen bis ñu am bis amoon naa signature mais fexe naa ba dem fa gaawoon di ñëw daal mais ngi nuyu suma ay bu baax a baax a baax ak ñi may jàppale ñëpp tund sàmm bi maa ngi foogale séeréer bi maa ngi leen nuyu bu baax ñoom xare fi bàyyi ma kenn yéen wax ñu ñaanal bu baax suñu boom defee ndam bu baax foogale séeréer ma xëy sim naa o mbiinun o ndaanun maxey xooya nuun a combat fane duudulo a bëgg ndam a paax maa ñaar suñ suñu boom defal ñu ndam bu baax a baax a baax incha allah maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp bàyyiwuma kenn sama papa maa ngi koy nuyu eh, ma de tey son non séeréer <laughs> waaw mais man doomu séeréer la man maa ngi dëkk Samb école fii Samb laa Modou lu mu wax. laa bu ji neex na ba pare te dara. neex na <laughs> waaw ni koy wax rek man ñi may lim ni dafa nekk ñoo xamante ni nekkul première fois ma lim leen. dama fay dem suma ay nit ñoo fa nekk. nekkul dama lim kenn parce que dama fay ñàll mais damay lim ke foo xamante ni sama ay nit ñoo fa nekk donc moom fu muy dem ak fu muy ay nitam ak yooyu loolu moom la concerné comme naan man fu may dem moom moo sumay nit ak ñu may ñaan ak ñu may jàppale ñoom laa nekk di woo maa leen nuyu bu baax a baax sama ay xarit ku ci mel ne Serif maa ngi koy nuyu bu baax ak Abel sama frère yooyu maa ngi leen nuyu bu baax di leen jàpp ci Marik borom New York du ma la fàtte sama waa ji combat bi taxaw na nga jàpp ci bu baax a a baax ngeen ci war a yëpp ngeen def ci ko suñu borom dafa ñu dam Ablaye Dieye DG DG aéroport maa ngi koy nuyu waaw DG AIBD suñu waay la Abib ñaa tamit suñu waay la waaw Habib Niang tamit suñu waay la ñu ngi koy nuyu bu baax a baax waaw président monsieur DG impôt domaine bu bees bi ñu ngi Modou Gueye di doomu Pikine président AS Pikine ñu ngi lay félicité bu baax a baax a baax di la ñaanal jàmm bu baax a baax di nuyu ñëpp rek bu ñu nekkee di lim dañuy juum duñu matal parce que ñi ñuy jàppale bari na waaw waa Daaru Rahman du leen fàtte barki démb ñu ngi woon ci gàmm màggal Daaru Rahman bi waa kër sëñ Cheikh Daaru Rahman waa kër sëñ bi ñoom du leen fàtte mukk mukk mukk di nuyu waa Daara Memba du leen fàtte bu baax ñu ngi nuyu ñëpp Moussa Dess sama gars yi maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp maalaw Pikine suma xarit Pape Sall maa ngi lay nuyu doomu Pikine bi yow ñu ngi lay jox sa wàcc waay bu baax ngay dégg lu la neex ak lu la naqaree pour ñun mais mosoo bàyyi Pikine yaa ngi jaaxal Pikine ñu mel ni yéen moo tax fu ñu dem dañuy teg suñu bakkan waaw ñu ngi leen di ñaanal jàmm bu baax a baax baax di nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp waa Tivaouane waa Casamance waa Gambie bàyyi fàtte wu leen son papa 200 pour cent Pikine yi ñoom son papa Pala Diop soo papa Modou Diop Abdou Bakhoum ñëpp ñëpp Baba Diallo fàttewuñ kenn maa ngi sant ñoom ñëpp di leen gërëm bu baax baax baax maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp gars yi naa bu baax a baax a baax waa Thiès Papi Dieye ak famille yëpp maa ngi leen di nuyu bu baax a baax ak ñàmme jërëjëf kontaan na merci mais il faut ngeen il faut il ngeen comprendre booy ñaan ak xam nga bi mu jógee ci ak Balla Gaye ba léegi waxul donc il faut mu profiter sant mais mais mais balaa ñuy balaa ñuy ñëw ci euh, Makan El Hadj Malick Thiandoum euh, suma mag Lamine Samba xam nga combat boo ko tëggee sponsor yi am na ci doole waaye ñii ñëw dagg seen i billets tamit am nañ ci doole muy amateurs yi il faut ñu woo président Gora mi nga xam ni mooy président des amateurs moom it mu daal di ñëw wax ci affiche bi nga xam ni moom la leen Gaston Production amal même ñoom sax am na ñu nañu saan boo xam dañ leen ko jagleel ñoom amateurs yi su góor ñëwee le 4 dina ci wax góor a doy ayca euh, góor a bismillah kaddu gaa ngi noonu ban yëg-yëg ngeen am ci affiche bi nga xam ne Gaston Production amal na ko euh, euh, ci arène nationale lay doon incha allah est-ce que sax duñ ko yóbbu ah jàkkaarloo ayca góor a bismillah góor a doy bismillah waaw asalaamaaleykum ñu ngi nuyu areeral tuuti rek areeral tuuti góor kaay ayca bisimilah c'est bon bisimilah. Cheikh ñu ngi lay nuyu di nuyu vraiment assistance bi yëpp di nuyu la presse nuyu vraiment Makan Mbeng di nuyu Abdoulaat di nuyu aussi ñaari champion yi muy Modou ki nga xam ne mooy Boy Niang mais ñu ngi nuyu Kandji production ci côté Boy Niang di nuyu aussi Khadim Gadiaga président di wax que vraiment lii sant yàlla la parce que tey yaakaar naa combat bii ngeen décroché muy Gaston production ñu ngi lay nuyu di la félicité waat encore fois parce que ñun amateurs yi mën nañu wax ni Gaston production desee la tuñu dara parce que tey combat yi nga xamante ni ñoo ngi ko doon réclamer yëpp décroché nañ ko parce que combat bi kenn yaakaar woon ni tey ji ñoom mën nañ ko décroché kon ñu ngi leen di ñaanal le jour yàlla may leen réussite totale mais di wax ni daal amateurs yi ñu ngi leen di wax ni Gaston Production deseelatuñu dara ñu ngi sant yàlla nag bu baax a baax a baax di ñaan ñaari mbëri yàlla may leen wér may leen gudd fan le jour yi ñëw remplir seen Euh, ki nga xam ne moom moo di Boy Niang 2 muy grand Pape Sarr waaye tamit ci côté Rock Énergie ki nga xam ne moom moo di président Khadim Gadiaga ñu yëkk ci ay kaddu jëmee ko ci affiche bi kaddu apaisement surtout gën a jàmm gën a am ci réew mi waaye entre ñaari mbër yi tamit supporters yi jàmm gën a am dañu ko demandé léegi su fekkee mën na nekk ñu may leen ko grand Pape grand Pape Sarr ñëwal waaw grand Pape Sarr ñëwal waaw papa am am grand pape ñëwal grand pape aca bismillah non non non mais déedéet déedéet grand teet grand doo toog fii grand bismillah aca non non grand non non grand grand kaay rek taxaw ah, daf may wuuf non temps bi temps bi temps bi problème temps la ñoom grand bismillah non aca bismillah ay ca Pape ñu déglu Pape Sarr mu wax ci turu aja grand bismillah waaw maa ngi nuyu ñëpp di nuyu champion yi toog fii yi di nuyu suma frère Modou di nuyu nag suma xarit keene euh, ndija magam bi Ibou Diouf kii moo ma yar foofu Pikine ñetti mbaar bi ma du nekkee xale ba tey musul ñaaw mu ngi nii maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax di nuyu suñu champion bi Boy Niang di nuyu manager bi di nuyu Kandji ak ñi ñu àndal ñëpp waaw di nuyu suma frère Khadim gajaga yàgg naa ko topp mu nekk écurie Fallaye su musaana bëree ba pare danaan ñëw fekk ma seeraas mu ngi nii moom conke siin écurie Rock Énergie bi yëpp ñoom ñëpp samay nit lañu Serigne Ndiaye maa ngi siy ñaan daal combat bi maa ngi siy ñaan jàmm xam nga supporters yëpp laay wax supporteru Pikine ñu xam ne tey suñu frère la suñuy ñaari frère lañu waaw xëy na xër-xër bi rek moo ci am mais man jàmm rek laa bëgg maa ngi ciy woo ñëpp ñu ñëw si jàmm xam nga di ñaanal suñu suñu rakk ji yàlla may ko ndam ngi ciy woo daal jàmm waa parcelle maa ngi ciy woo ñu ñëw ci fair play xam nga may woo président supporteru parcelle bi bu bëggee ma ma solal ko ti satu booy man ma sol ti satu Modou ñu taxaw loolu laa bëgg. jërëjëf Pape ñu jox kàddu gi grand Khadim Gadiaga bi nga xam mooy président Rock Énergie mu wax tamit ci affiche bi nga xam ni mooy dox ci diggante Modou ak Boy Niang pour ñu gën a woote apaisement jàmm am ci ñaari clan yëpp ndax Parcelles Pikine Sénégal la Modou Lo Boy Niang Sénégal grand Khadim bismillah jërëjëf euh, Cheikh di la gërëm di gërëm Lamine Samba di gërëm euh, El Hadj Malick ci partage bi nga xam ne def ngeen ko parce que lii rek mooy Sénégal vraiment lii dafa rafet te lii ñu ngi ñaan politiciens yi nga xam ne ñu ngi def politique ñu jàngee ci lii ci ñiy toog dañuy féliciter wax ji day gàtt nag du gudd mais dañuy féliciter suñu papa Gaston Mbengue ñaanal aussi Serigne Modou Niang mi nga xam ne tey jii mu naa ne. combat bi ma génnee premier grand combat yëpp moo ko tëgg yàlla na suuf Touba oyof ci kawam yàlla tabal ko ci àjjana gën a kawe. maa ngi nuyu nag jëkkee ci suma jarbaat di Boy Niang di nit ku positif di nit ku yaru nit ku xam kàddu ni muy waxee mais nag euh, ñi ko uuf war na mën a mel noonu muy ki nga xam ne dañu ambassadeur de la non violence. kàddu yu mu seddeel Modou moom rek mënoon na wax ci turu Modou Lo moo tax ñu ngi lay sant bu baax ci turu waa Parcelles Assainies yëpp di wax ni combat bi bépp amateur boo xam ne bàyyi woon nga làmb wala xalaat nga ci violence na nga sañse xotti sol basin bu rafet ñëw seetaan ko parce que ñaari mbër yi ay jàmbaar lañ danañu bëre danañu xeex te làmb ji na am jàmm ma tourné nag ci tam sàmm tàmbalaa saa béy bi parce que nag dañ ne euh, nuyoo la rek waaye njàmbaas yàqul roof yàqul jën a ah, booy Niang tey jii de kiñ lay ndil <laughs> kiñ lay ndil parcelle dañ ko namm ñetti mbir am na Modou Lo pànk la te liñ lay wax naan la yow sax xam nga ci dara liñ naan ay ustaas ay yooyu yëpp xam naa ni gëmoo ko waaye nag combat bi jëluñu ko pour ñàkk ko dañ ko jël pour daan ndax bu dee bëre bu dee xeex bu dee jom bu dee fulla bu dee ngemb dana ko indi incha allah di woo nag ñi nga xam ni le premier ministre Amadou Ba di woo le ministre de la jeunesse ñi nga xam ni moo Modou Lo ñoo bokkoon école. di woo waa parcelle yëpp 1 ba 26 comme ni ko Asbar waxee ak staff bi ñu àndal. jaajëf li ci kanam rawali bët incha allah ñu gën a yegg. jërëjëf grand Khadim Gadiaga kaddu yi am na solo léegi. Alaaji Lamine Samba ñu sóor temps bi. non man man non non man pare naa ci sax li may wax mooy. dama bëggoon ñëpp tamit jël référence ci bés bi. li tax ci bés bi mooy. Boy Niang Modou Lo dafa am ñetti télévision yu ko séq. tey xàmmee woo ni Malick Thiandoum man ak moom ñoo nekk TFM. xàmmee tey ki nekk ITV xàmmee ku nekk Sen TV loolu noonu ñu bokk noonu loolu la politiciens yi war a bokk. xam ni mhm. réew mi ñoo ko bokk. dëgg la tey kenn ku ci nekk ci ñun fàtte nga sax télé bi nga nekk. kenn déggu fi kenn ku bàkk teleem sama télé moo fi lii noo déggu ko fi ñun ñëpp dañoo bokk ndey bokk baay. Malick Thiandoum ngi noonu dend ak rakkam bu Sen ah, bu ITV man ma dend ak suma rakk kon ni ñu def nii na ko mbër def. na ko politiciens yi def na ko askan wi bokk Sénégal benn bopp la kenn sañu koo xarñaar jërëjëf El Hadji Lamine Samba dañuy dañuy ñu dellu siwaat rek ñu dellu siwaat rek suñu mag dafa am lu mu wax wax ji dafa ñoo ñor moo tax ñu koy baamtuwaat ñuy ñaanaat rek suñu mag mi nga xam ni moo jiite CNRA signalu Walfadjri ñu ngi ñaanaat ñu rétablir ko. wal fajri delluwaat ci liggéeyam ndax suñuy naatoonga lañu lépp lu metti benn télé day metti télé yëpp te vraiment Sénégal war nañu weesu fu ñuy tëjee ay tëjee ab di Sidi ñas Niass liggéeyal nañu loolu ba dem kon nañ ko delloo njukkal ci njabootam nañ ñu dimbali bu baax a baax bàyyiwaat signalu wal fajri ñu commencé waat seen liggéey buñ jógee ci loolu nag dañu daal di jox kàddu gi Makan Mbeng parce que question yi bëri na Makan question yi bëri na mooy Gaston production mbaa kombaa bii dana yéex mbaa du génn at mi mbaa danañ ko bëre ci at mi loolu ñëpp laaj makkan ñu bàyyi la boo paree nag nga def synthèse liñ fi waxtaan lépp lépp ci diggante Boy ñaa ak ki nga xam ne moom moo di Modou merci beaucoup <laughs> combat bi su ma sañoon sax mu am suba ñi ko yàkkamti bëri nañ. dégg loolu. mais euh, damay nuyu waa CNG président Bira. sama tonton bu baax dama koy nuyu di ko remercier ci lu bëri euh, combat bi mënaguma ci prononcé wu parce que comme ni ñu ko waxee rek non ma yi du ñu réeroo samay frère lañ waxtaan nañu xam nañu lu ñu waxante incha allah su saison bi jeexee ñun saison bi dana ibbiwaat le premier octobre donc euh, fu mu nekk ni mënaguñu wax dara combat bu ñu régularisé gul moom kenn mënu cee wax dara dañuy respecté nag euh, stratégie yu CNG yu mu tegal yëpp incha allahu rabbi daal xam naa ni su ne comme ni ma leen ko waxee rek su ma sañoon sax bi nekk suba yéen a bu ko gën a yàqamti man maa leen ko gën a yàqamti ndax euh, xaalis bi ma ci def bëgg naa nag mu dellu si ci lu mu gën a gaawee donc xam naa ni ko maa ko gën a yàqamti incha allah combat bi moom dina am bu soobee yàlla le plus tôt possible lenn lu ma ci wax rek mooy appel toujours aux sponsors Euh, parce que ñoo fi s'il ak dégloo ak dégloo tuuti ñu àggale liggéey bi li ci des bëreetul. waaw di woo sponsor yi di woo yi di woo kilifa yi ñu ñaanal bu baax ñuy dem ci bésum jàmm ñu ngi jëm tamit ci ay élections affaire yi commencé na yëngu te euh, dara jotagul donc euh, ñuy wax ni rek Sénégal ñu ñoo ko moom Sénégal ñu ñëpp. ñoo bokk ndey ak baay donc am na yenn euh, lieu yoo xamante ni sax di fa dem di fa def yenn kii euh, li ci mel ni lu jot a xew Touba fan yi dañ koy ñaawlu ah dëkk bu mel ni Touba moom wax dëgg yàlla moom kenn waru faa def lu ñaaw ku fa def lu ñaaw nag dañ ko gis loolu moom sëñ Touba seede na ko. incha allahu rabi ñuy remercier encore une fois notre président Macky Sall borom drapeau bi ñu koy remercier bu baax ci liggéey bi muy def. damay lancé aussi ñi ngi jëm la 5 mars ah, yéen combat bi bëgguma mu muur benn combat de sama xaritu promoteur yi gars yi ñu ngi bëgg muur seen combat yi de yéen après dama leen di denc ñu toog ba ci kanam kanam ñu commencé waat waxtaan ña nga jëm ñu nga jëm la 5 mars rëg-rëg Sa Thiès combat boobu tamit drapeau ba Diattara le ministre des sports nga xam ni que sama frère la mi ngi liggéey loo xamante ni macha allah ndamam mu njëkk gis ngeen ko ci coupe CHAN bi ñu ko ci félicité bu baax a baax a baax tey mu nga woon sama dëkk Louga ah, xam naa ne dalal nañ ko dalal comme nuñ ko war a dalalee ndax ñun ñaambur ñaambur yi ñoom suñu dalal euh, day neex di nuyu waa waalo samay mbokk foog ma tudd leen tuuti du mbëri kese ñoo am mbokk du loo Boy Niang woo nañu seeni mbokk man nag damay woo samay mbokk waaw waalo waalo yi maa ngi leen di woo bu baax waa boqal ñi waa ndànd waa Louga ñàmbur ba mu ndaj yëpp waa Casamance joof yoor sama cumukaay joof yoor la nekk nag bu ma kii jéem a kenn kii de yéen yéen laa yaakaar <laughs> donc di nuyu ñëpp daal di gërëm ñëpp vraiment kontaan ci presse bi ah encore une fois di nuyu Gaston Production di hmm. leen gërëm ñoom Modou Anta ñoom Pape Bouba yéen di ci liggéey vraiment maa ngi leen di remercier ñoom Khalil yéen ay borom baax ngeen dama bëri ay partenaires Gaston Production dafa yaatu yéen ñi toog yéen ñëpp Gaston Production ngeen bokk ndax lu ma yëngatu yéen ngi ci. donc Fadam yéen ñëpp dama leen di nuyu Kandji sama frère triple promoteur maa ngi lay nuyu di la sant bu baax xaat nag moom comme lu ma leen wax rek mënuma ko fay. maa ngi nuyu Aliou Ngaye di ko féliciter ci journée bi bi passé maa ah, Malick Thiandoum jërëjëf dama lay nuyu yoo tamit vraiment yow sama frère nga yow bi nga bokkee Gaston production du tey yàgg euh, sama gaa yi ñu muy Cheikh Sarr muy Lamine Samba Mamadi vraiment merci beaucoup pour tout. jërëjëf jërëjëf li ñu bëgg mooy. waaw euh, li ñu bëgg mooy. li ñu bëgg mooy dañuy def synthèse rek daal di bàyyi Modou ak Boy Niang ñu joxe seen dernier mot bu ñu paree. buñ joxee seen dernier moo pare. def photo de famille ñaari mbër yi rek. ñaari mbër yi rek lañuy bàyyi ñu taxaw. ak Makan Mbeng ñu def photo de famille après ñaanalante. ayca. Euh, Boy Niang non xaar Boy Niang day sànni kàddu rek après. voilà dañuy def ñoom ñaar le mot de la fin le mot de la fin waaw suñu paree ñoom ñaar pour les photographes ñoom ñaar kese. ñoom ñaar kese après ñoom ñaar ak promoteur bi. voilà ñun tam ñuy profito rek maam Ndiaye Makarimal ak la couture. Uh-huh. ah moo ma solal man tamit damaa am sponsor. <laughs> muy 77 437 03 63 77 437 03 63 maam Ndiaye Makarimal ak la couture. ayca mi ngi noonu eh, jërëjëf El Hadj li Thiandoum waa Seex nga may ma tuuti rek dafa am lu am solo lu ma père Bourkhane euh, wax yóbbante ma ko ayca xam nga Modou ak Balla ñooy Modou ak booy Niang ñooy mayante xaalis da ngay xool ne euh, gisoo fi benn gendarme gisoo fi benn policier gisoo fi benn woy takk der te coow amu fi kenn gisu fi càmbal càmbal xeexoo amu fi xuloo amu fi saaga amu fi muy loo xamante ne lu am solo la kon loolu la ci ñëpp roy kon loolu lu am solo la gis nga ko daje nañu fi tey mu ngi nii ñu leen fi benn wuy takk der te lépp normal na kon loolu la ci ñëpp bàyyi xel am loo xamante ni jàng na ci ñu ngi jaajëfal ñëpp di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullah ñi ñu doon bàyyi xel ñëpp jërë ngeen jëf Boy Niang bismillah Boy ay Aïcha waaw waaw damay ñaanal son papa Gaston rek suñu boom defal ko jàmm bu baax ak dégloo waaye ak dégloo son papa Gaston ñu ngi koy ñaanal suñu boom may ko tan amiin mu tane bu baax ñëwaat ci monde làmb parce que kuñ soxla la koo xamante ne dafa dund làmb def lu nekk ci làmb magal ñu ngi ñaanal suñu papa mu tane ak jàmm mu ñëwaat ci njaboot gi waa di nuyu bàcc aselam suma waa ji maa ngi lay nuyu bu baax cëpp xeeru fajara waa noonu la maa ngi lay nuyu bu baax Amadou Sow agent de voyage Thiès maa ngi lay nuyu sama grand Ibrahima Diop Kajoor production suma nit la suma lépp la xam naa mi ngi may seetaan maa ngi ko nuyu ak jabaram ministre Yankoba Diattara comme ni nga ko waxee léegi doomu Thiès maa ngi koy nuyu di ko gërëm bu baax Amadou Diarra du ma ko fàtte suma monsieur le maire Amadou Diarra waaw léegi su ma gën a Xaadim Gajaga léegi dégg naa ko mu wax ay kàddu waa di la wax li nga wax noonu la Modou champion la Modou champion la loolu kenn du ko bañ waaw sëriñ Ndiaye dégg nga Modou champion la loolu xam nañ ko waa ñun dañ nekk xale loo xam ne am lu ñu bëgg de waaw dafa am lu ñu bëgg waaw te ñun Pikine Pikine moo ñu yónni Pikine moo ñu yónni te Modou dernier combat am Pikine maa ngi woon estat waaw te gis te gis nga waaw ma ñëw rek ma ñëw rek ma ñëw rek dernier combat am maa ngi woon stade ma jooy jooyu métti waaye yéen a ko wax waa jooy yooyu da ngeen may fay de yàlla xam na ko lu leer laa la wax seetu Cheikh Rim bi bu ne leen da ngeen may fay rek da ngeen may fay man maa la wax loolu dafa koy fay waaw man maa la wax loolu ay jooy jooyaat incha allah jooy jooyaat. non dama ne la su ma waxee da may fay rek da may fay. jooy jooyaat. Moutou ma daawul góor moo la wax loolu da nga may fay bu baax a baax maa la wax loolu. jooy jooyaat xeex nañ bëre. liy tooy caw la ah. kon jeex na dinañ xeex dinañ bëre. loo kupp rek mu baatare. àdduna potu ndaara rek boo naanee da ngay jox sa borom mu naan muudu. waaw noonu la demee. waaw da jox sa boy mu naan waaw noonu la demee de. bilaay wallaay. du ma la may dara loo may ma jël billaahi. may dara ma koy jël nag. ay ca Modou Lo na Modou Lo moo. waaw na may na may leen Modou Lo. Eh, eh, xar xar ko ñaax may di waxaat. may leen Modou Lo moom it mu mu mu di woote waat bu baax rek. lu ñuy wax rek. boo ñaa toogal boo ñaa toogal ku doo jeexal da nga dul matal. di woowaat waa parcelle bu baax a baax surtout waa unité 10. waa un ba 26 maa ngi woo ñëpp. dañ wax na ñu ñëw taxawaat le retour de Modou Lo incha allah. di nuyu suma transitaire boobu muy euh, Khadim Fall am ah di nuyu Boy Ousmane borom Kasor di nuyu ñëpp daal vraiment. ayca Modou ak Boy Niang eh. mën nañu taxaw ñoom ñaar rek. Roof. rendez-vous bi la 5 mars. gars yi puus mu ak Sa Thiès rendez-vous bi la mars. Reug Reug ak Sa Thiès. acca Modou ak ñoom ñaar a ngi noonu di saafonte. ayca ayca jërë ngeen jëf ayca ñu may leen photo de famille ñu may leen Cheikh Sarr kaay nii Cheikh Sarr ayca photo de famille ñu bàyyi Boy Niang njëkk wàcc nañu bàyyi Boy Niang mu njëkk wàcc ak waa këram ayca jërë ngeen jëf mbokki nañu bàyyi Boy Niang ak waa këram mu njëkk wàcc ayca lépp rafet na macha allah. Cheikh Sarr nañu bàyyi Boy Niang ak waa këram ñu njëkk wàcc. voilà Boy Niang ak waa këram dañ njëkk